waaw adduna bi bi nga xam ni tey jii moo ñu yónni fii ci kër soxna Jaara soxna Viviane lii fukki million ku bëgg a mu leer yéeme mu boole ko ci benn ngi nii waaw. beneen wurus a ngi nii encore waaw waaw ci ci ci ci ci àdduma bi. waaye nag soo ma mu teg ci. waaw mu ngi noonu. DM mu ci suuf gaale. boo xam ne moom bul. ah waaw boobu yus. waaw xam euh, lay waral rek loo loo loo waaw dëgg la. oto bii. man nangu ko mm-hmm. X7. <laughs> ñaar ñett ñeent juróom. juróom benn juróom ñaar juróom ñett juróom ñeent fukk mu dix millions euh, waaw pariro la ilaha illallah yi nga xam ni moom pariro or yu kenn waaw ah, mooy suñu xarit <laughs> Fandoy suñu kër la nekk sax waaw. dajaag yow yow la ñu dund xaar. yow li lay xaar ba sama mbokkum taalibe bi ki ma bokkal ko xeet léegi bii bii million la. yow yaa ko moom yaa ko sa nekk. yow ak. yow ak. yow soog. géwél yi ma fekk. Sarılalı eh yow c'est toi. ata dama sori. day dem moom da moom boo nee demal rek dem Kadoo Kadoo ak Ata. fii sa borom newul.